magistrat fen fent coffre la ci labyrinthe lu leen neex la ñuy jugé lii par 1900 la li ngeen di dund nii wax nañ ko bu yàgg xeex nañ ko ñun dañ ko buñ koy xeex ñun amaguñ bijaaw buñ koy xeex amaguñ karaw naq buñ koy xeex amaguñ coq buñ koy xeex ñun amaguñu amaguñu jaaf li ngeen di dund nii buñ koy xeex du léegi xeex nañ ko bu yàgg teewal nañ ko bu yàgg ci mbedd mi wàcc nañ ko ci mbedd mi xeex nañ ko donc ñun sañu xeex dafa mus a exister du xeexu tey du xeexu démb ak bërki démb kenn mënuñu xeex bi dañ ko dañ koo miin yàgg ci màgg ci képp ku fi ñëw rek ñu fee fekk képp koo gis tey ci xeex bi daf ñu fee fekk donc yéen yéen a ñuy jàppale lu ñu leen mën a wax moom mooy jërëjëf albarka jaaraama parce que yéen jàppale ci xeex bi xeex bi nekkuñu ci ginnaaw kenn yéen a ñu ciy jàppale dañ koo xeex démb ak bërki démb ba sanc ko loolu moo ko doonal tey dictature bi musu fi jóge banditisme d'état bi musu fi jóge sàcc yi bandi salte yi ñuy yónni ci télé yi ñuy rafetal ak setal seeni crime yi musu fi jóge dara musul changé lañ continuer ci combat bi on voit on lâche pas les gars tambour battant Sonko moom mi ngi def xeexam mi ngi koy matal ba mu mat sëkk ku am fayda la démb à 17 heures lañ ma wax ni ma dañoo woo Sonko xalif général des Mourides parce que dafa nekk di lijjanti wax naa ko bërki démb Macky Sall démb la dem non bërki démb la dem bërki démb bërki at démb laa leen Macky Sall day dem Touba ñu teg ci vingt heures Macky Sall dem Touba xalif général bi am lu wax ak moom pour ñu dal pour ñu tekk tekkaaral ñu ñu toog pour ñu noppi wax ak ki nga xam ne mooy Macky Sall ba pare ne dafa soxla Ousmane Sonko pour wax ak moom. les deux belligérants mu woolu Ousmane Sonko dem mu ñu woo ma à 17h na ma information bi moom mooy la xalif général des Mourides woo na Ousmane Sonko pour mu ñëw wuy si ko à 4h du matin ñu waxtaan balaa fajar maanaam 5h du matin après Ousmane mun naa ñibbi këram ñu ñëw yeggee ko Ousmane Sonko mu nangu accepté. Macky ne ko moom Ousmane Sonko du génn këram ak otoom ak délégation parce que Macky Sall dafa jël Ousmane Sonko def ko prisonnier bu ko jël Ousmane Sonko ne ko day dugg ci oto euh, blindé bu police mu yóbbu ko comme benn prisonnier mu yóbbu ko Touba mu gisanteeg euh, xalif général bi après ñibbisi Ousmane Sonko ne ko maa lànk nee naa la amoo benn loo may imposé. yow bu la xalif général bi wooyee dangaa dugg si sa oto dem wuy ji Touba ñu yuuxoo la bu ma xalif général bi wooyee damay dugg sama oto ànd ak sama délégation wuy ji kenn du ma dugal ci ay oto police bu la neexee ngeen escorté mais dugg oto police Macky Sall dafa jël Ousmane Sonko nekk da ko bëgg dugal ci biir oto police bi comme prisonnier xanaa xamul leen ni prisonnier rek mooy dugg ci ay oto police di wuy ji di wuy ji buñ la jàppee ci giri bi bis moo lay jël si dina yóbbu tribunal wala biisu li nga xam ne moom mooy oto pénitencier yi donc Ousmane Sonko Macky Sall da ko bugg a def ci biir mine comme prisonnier bu ko jël ci oto police mu nekk ci biir mu yóbbu ko Ousmane Sonko du nangu nga mun a ko yóbbu ko du nangu dugal ko ci ay oto police comme nu mu defoon foto ko loolu du ko nangu parce que du prisonnier bu ko nangoo rek doon prisonnier moo tax Ousmane Sonko yónneewaat ñooñu ne leen dem leen ngeen wax xalif général bi pare naa pour ñëw mais Macky Sall def ne ma du ma génn sama kër dem wuy ji ak sama oto ak sama délégation damay dugg ci biir oto police blindé bi ñu yóbbu ma comme ni ñu ko defee du ma prisonnier loolu moo waral démb gisu leen Ousmane Sonko te pourtant bëri mënu fa woon am parce que xalif général bi quatre heures du matin la convoqué Ousmane Sonko quatre heures du matin la ko convoqué quatre heures du matin la ko wax pour mu ñëw ko donc Ousmane Sonko naroon na jóg à trois heures matin wala deux heures et demie ñëpp di nalaw mu dox ndànk loolu yëgu ko kenn yëgalu ko kenn man cinq heures la dix-sept heures laa ko yëg te buñ may jox information bi dañ ne ma bu ma ko wax pourtant def naa live ñu ne ma bu ma ko wax wax naa ko sama ñaari nit nag wax naa ko ku jigéen wax naa ko ku góor ñaari nit ne leen Ousmane de quatre heures du matin tey boo def naa dina fi jóge mais dafa nekk ci werante parce que moom dafa ne du dugg ci oto police di wuy ji euh, ki nga xam ne mooy xalif général de mu du ko def nee na loolu du ko def du dugg ci auto police du prisonnier ci werante boobu lañ nekk mais bu bu ñu jubóoyee Ousmane Sonko dina wuy ji xalif général bi bu ñu jubóoyee bu ko Macky Sall nangoo bàyyi mu dugg ci otoom ànd ak délégation bi dina wuy xalif général bi parce que jox na ko convocation pour mu ñëw wuy si ko à quatre heures du matin quatre heures matin kan mooy génn xanaa Touba dinañ di nga leen fa gis waa Touba dinañ génn ñoom recevoir Ousmane Sonko gàttandu ko ak libérer Ousmane et cetera et cetera comme ni ñu yuuxoowee di Sall dinañ bégee Ousmane Sonko parce que yàlla moom la moom la yàlla fal nañ ko faale ku faalewul Ousmane bu leen ko faale yàllaa ko fal yàlla moo ko fal kenn du suul euh, maanaam takk ndeer kenn mënul nëbb jant yàlla moo jël Ousmane Sonko def ko takk ndeer def ko jant kenn mënu ko nëbb da nga koy bëgg a nëbb muy feeñ nga loo def kenn du suul takk ndeer loolu yàlla moo ko def Ousmane Sonko <laughs> ku nangul yàlla rek noppalu ku nangul yàlla noppalu ba ma ko yëgee bañ ma joxee information dañ ne bu la bul ko génne mais comme affaire ba cool na mujjul am ma génne ko Ousmane nangul dem tout simplement parce que Macky Sall moo ko bëgg a dugal ci biir auto police yóbbu ko mbete prisonnier donc les gars newoon naa leen xalif yi ñoom ñu ngi dox diggante bi Macky Sall nee naa leen bu ko Ousmane Sonko téye loxoom mënata ko ne ko yóbbu ma du ko yóbbu Ousmane laal dee la joxoñ dee laal dee jege dee bañ dee ku ko songu sànku wax ji dadul neen Sonko ku ko songu sànku loolu waxante ko baatin la baatin da di gis nit yi rek mais baatin la yàlla moo ko sas moo ko moo ko déy ci ab guddi yàlla moo ne ma nee leen sonko ku ko songu sànku ma génn sonko ku ko songu sànku sonko ku ko songu sànku sonko ku aka sa sonko ku ko songu sànku sonko gaa yi di tëb di dal yàlla moo ma ko déey moo ne ma nee leen sonko ku ko songu sànku ma génn ne leen sonko ku ko songu sànk sonko ku ko songu sànk sonko ak a neex faral sonko ku ko songu sànk sonko sonko ko songu sànk sonko ak a sàpparal sonko ku ko songu sànk sonko sonko ku ko songu sànk sonko ak a neex a faral yàlla moo ko taal moo ko aj moo ko leeral justice bi ci duggoon di ko jéem a fenal ñoom ñëpp sànku nañ na ngay daw di làqatu comme deewu kaña Macky Sall ba mu ko songee dëkk ba tàkk na déggu leen ma de GIE defoon lu salte ñëw daw nañ yanu nañ seen njaboot yi di daw comme kaña ñu ngi dugg ci suuf rondal yi partout ku ko songu sànku barke alxuraan alxuraan laa wat billahi wallahi baatin la ku songu sonko ba bés bu yàlla di dindi baatin bi ci moom ku ko songu sànku ak noo day ak noo day ku ko songu sànku loolu baatin la du caaxaan donc gars yàlla moo ko fal nañ ko faale ku faale wul Sonko bu ko faale de bu ko faale ndax day sànku lu leer laa lay tegal